ñu ñu laal tuuti rek. kuy tuuti dama lay dagg de dama tuuti. bu la tuuti rek. déglu nga ko déglu benn fraction de seconde après ma zappé yeggali wu ma ko. lan jox la Amadou Ba. am man kii bu nekkee kii mhm. ma nekk Amadou Ba. Mhm. ma bëgg koo corrompre du ma jël sama téléphone. non non ah mooy monsieur Ben dama bëggoon léegi ngeen rejeté Karim Wade am naa benn 1 bu may denc ngeen seen biir. Mhm. léegi man maa enregistré wala yaa enregistré yow nga ne yow la ñuy korom. yow di nga enregistré sama bopp du sa intérêt. man mi lay korom dinaa la enregistré. du sama intérêt aussi. il faut que les sénégalais aussi se réveillent. waa APR aussi ak waa Benno. Mhm. attends il faut que nañu dellu si xelu sénégalais yi tamit. Mhm. bu fekkee ci loolu lañu bëgg a jàpp rek ne pour Amadou Ba corrompre na conseil constitutionnel. maa ngi déglu conférence de presse bu waa PDS dem mm-hmm. mais bi mu déglu Mamadou Thiam le président du groupe parlementaire mais lii la wax mu ne way audio yaa ngi circulé ci réseaux sociaux yi boobu léegi askan bi waxuñu ci te dañ cee war a wax loolu mooy suñu argument ma ne mais kii kii kii kii respecté wul Sénégalais. nee na sax ñoom am na yeneen ojo yu gën a. dara bu dee lii ñu dégg ci réseaux sociaux yi. amul benn authenticité. Mm-hmm. et puis foofu dama ne dama ne éthique ak valeur waroon na ko mun a a may mu wax ci loolu. naan non ñoom ci loolu lañu sukkandiku ñoom dañoo war a génne ay preuve yu leer nañ ji ñoom nañ gën a ay preuve yu leer mais du ay audio yaa ngi circulé parce que sénégalais yi ñu audio yi importance booy corrompre Amadou Ba buy corrompre Badio euh, président conseil constitutionnel Badio Camara mais du ko woo téléphone déet waxuñu di ko proposé Cheikh Ndiaye la ñu wax waaye am na ñoo la ñuy wax Badio waa léegi jàpp na ñoom la rek parce que tey bu dee benn Cheikh Ndiaye la wala benn Koulibaly jàpp na ñoom ñëpp entaché buñ ne jurnalis journaliste lan moo tax boo ne benn journaliste ko jënd corruption journaliste yëpp ay jógadoo ci plateau yi solidarité de corps dafa am mais dama ne amadou ba mu ngi wax Cheikh Ndiaye ne ko dama lay corrompre jox la xaalis amadou ba du arrêté boppam Cheikh Ndiaye du arrêté boppam ba pour ñu jël arrêtement yi xanaa sax dañ koy jël dajal ko seen bopp mais ñoom ñaar kan moo ci jël arrêtement bi joxe ko il faut qu'on soit aussi logique un peu mm. wala mais man sama xel ko mm-hmm. sama ko mais ak déontologie aussi mayul PDS ñu def conférence de presse bëgg a sukkandiku ci audio fuité yi nañ jël ay preuve leer rek. jox ko en tout xalaat si audio yi déglu nga ko. waaw déglu naa ko comme euh, comme ni ko ñëpp déglu rek mhm. euh, euh, mais man fi may wax rek mooy ah, xam nga. wala gaa ngi jubilé. xam nga fu ne nii war. gaa yaa ngi jubilé cité góor gi ma ngay toj. waaw waaw image bu rafet la. par mhm. contre je trouve que image bu image bu rafet la. et que nous devons ci élections inclusives par rapport à mm-hmm. taxaw par rapport par rapport à euh, <laughs> aller dans des élections inclusives moi reprendre ah, le processus. ah bu fekkee que <laughs> ah élections élection inclusive. Euh, voilà donc c'est le <laughs> euh, mais le wax ci que ci ci nañ ci àndax tey mhm. ndax xam nga nguur gi jeex tamit mhm. di nga dem ba def ay erreur de débutant doo ko xam mhm. ndax euh, tey gi am na loo xam ne euh, li ko doon firndeel mooy ñu ngi def ñu ngi def émission yi mais suba bu ñu gisaatoo ñu taxaw naan café Touba donte ay mbokk taalibe lañ. dootu ñu gis ne ne. ay mbokk yaa ngi wax da ngay dem Touba man maa ngi Touba suba. suba la.